abonné leen ci seen youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngeen man di ko jot ca tàng-tàng ba audu billahi min alshaytani arrajim bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi baalu ñépp xaq di xaq itam di ñaan yàlla subhaanahu wa mu boole ñu baal mbokk yi di am di fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane tem boo xam ne tem bi gëna a màgg ci thème yi la tem bi gëna am solo ci tem yi la tem bi mat gëna sonne la ci thème yi ñuy sonne di ko waxtaane te mooy thème bi nga xam ne moo jëm ci suñu téere bu tedd bi téere bu màgg bii nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala wàcce jaarale ko ci malaaka bu ñuy wax jibril alayhi salaatu wasalaam mu indil ko seydina muhammad sallallahu alayhi wa di ci leeral yoon wi nga xam ne ci la jullit ñi war a tënku yoon wi nga xam ne àdduna ci la war a tënku bi islam xewee ba keroog saadi taxaw mbokk yi téere la boo xam ne jàng ko day la ca nekk ca tuyaaba riyaay ba foo ko takk weesu na ko la ca nekk ca ngëneel màggaay ga foo ko natt romb na fa waaye la ca yàlla di jéggale ci bàkkaar di ko jéggal ki koy jàng bari na lool mu nekk marchandise boo xam ne képp ku koy jaay doo masa lambule ndax ki koy jënd am na te li mu am du jeex moo tax képp ku koy jaayanteeg yàlla yàlla dina la fay loola jomb mooy la ma waxoon ne inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu alsolaa wa anfaquu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaratan lan tabuur liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziidahum min fadlih innahu gafurun shakur ca suratu fatir ndeysaan kon mooy marchandise bi nga xam ne ku koy jaay du masa lamb déedéet ndax lan ka koy jënd mooy koo xam ne du jeexal te du neenal ka jeexal du neenal boo ko indilee marchandise bi mu gën a bëgg xam nga ne moos di woomal di woomal bu baax a baax a baax a baax waaw kon sëriñu daara yi sama mbokku taalibe yi kon nag nañu déglu bu baax taxam xam ne tey suñu temu bopp lañuy waxtaane luñ daan am ci mbégte danañ ko gën a yokk luñ daan am ci sawarte ak contentement danañu ko gën a yokk loolal gën ko guddal gën ko réyal gën koo tawi ndax lan téere bu màgg bi daal ku koy waxtaane faw nga wane ne daal dëgg-dëgg a ñëw nañ ci deg dëpp gi alquran mbokk yi bokk na ci ngëneelam képp koo xam ne nee ab jullit la te mokkalu ci dara léeg nga gis koo xam ne daan liir naa téeméeri roman koo xam ne journal yi génn ci bés bi bu ci nekk dina ci am dajale di liir rek waaye boo ne ko woon taril inna aataynaaka al kawthar saar wu gàtt woowu indil nga ko problème bu dol bu bu bu bu doy na ñey <laughs> ndeysaan hmm? waawow roman yu ne nag da koy liir journaux yi ah magazine yi revue yi moo xam hebdomadaire la wala mensuel yi la wala quotidien yi la moom daal yépp rek pour branché wu pour nekk au diapason daf koy jaral lu ne waaye nee naa la boo ne koo taril ma inna ataynaaka alkawsar de indil nga ko problème bu tol ne ñay yonent bi sallallahu kooku de na jàpp ne mokki fanaan ci kër gu ràpp ñooyam waaw yonent bi sallallahu alayhi ci xadis boo xam ne ñu ngi koy jële ci abdullah ibn abbas tirmidi soloo ko dane inna alladi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'an kal baytil xarib nee na jullit bi nga xam ne soo làmbee ab dënnam doofa daj benn fépp ci alqur'an du aaya bu mat du saar mat waxuma la ay xizib ki yooyu nee na kooku day moo kër gu ràpp ñooyam kër gu ràpp nag lu jar a bàyyi xel la waaw kër gu ràpp mooy kër goo xam ne miir ya daanu na amatul ay néeg amatul ay meuble nga fay fanaan xam nga ne moos bu dee cëg la aw tàngaay dina la sonal waaye bu dee guddi la ci jamonoy sedd ab liiw dina la sonal lool kon kër goo ne munta protéger nit ki tàngaayu jant bi buñ nekkee ci sedd bi munu koo aar munu koo fegal ab liw kër googu xam nga ne moos kuñ ne dëkk fi la ngay tontu kala ko wax mooy xanaa dag yet waaye moo ne day ka koy wax su fekkee dënnam dara ci alquraan nekku ci moo kii fanaan ci kër gu gent googu ñoo yam ah yonent bi sallallahu alayhi moo wax loolu waaw mbokk yi jàng alquran day yëkkati daraja waaw day tax ki koy jàng darajaam kawe lool ci àdduna ak àllaaxira ñun nag ñu ñuy màggal di leen dérouleel tapis rouge ak tribune d'honneur mooy boroom ndomba tànk àdduna yi waxoon naa ci benn wax ne ay suñu réew mi ak ñoo man catégoriser société bi dañu leen di catégoriser ba day feeñ ci xew yi ñi ñu favoriser leen ñeneen ña ñu marginaliser leen stigmatiser leen tellement que day mel na sax ndeysaan daa am ruux yoo xam ne ruuxi jamaa la mu bindee ko ñii ñu mat a fonk am ruux yoo xam ne ruuxi përëm la wala xànjar wala weñ mu bindee ko ñi mat fonk moom daal lu yéeme la waaye daal ñun li ñuy màggale nit nee naa leen bu xew amee am na daluwaayu VIP yi am na daluwaayu ñu yamamaay yi am na daluwaayu ñu suufe ñi VIP yi dañu xool kër gi gën a kër yi gën a luxe ci koñ bi gën a ràññeeku ci koñ bi boo ñëwee ci ngénte la wala ci gi yóbbu ko kër diw waaw fekk kër gu rafet lay doon nag am ko xam ne su ñëwee moom dañ naan ah jërut mu ñu koy wutal kër gu lix mën naa dugg ca néeg yi rek ci kër gi xew bi am day fekk nag waa kër gi nag dañoo xeeb seen kër nag waaw boo tabaxee sa kër xew la ngénte wala céet wala dëj wala sarax wala yu mel noonu am na gan yuy ñëw da ngay jàpp ne ëpp nañu sa sa néeg yi nga am da xool kër gi gën a rafet ci koñ bi nga ne nañ ko fa yóbbu yaa ngi koy nattkat ca oto bu rafet ba ak sañse ba am ku ñëw koo xam ne moom amul oto xëy na ci taxi la wàcce wala yooyu nga ne waaw a ah, dugal ci biir néeg bi kooku moom waaw kay tolloo naa kër gi xew bi am ndax kër gu yemamaay la te moom sañ-seem daa yemamaay te amul oto boppam taxi la wàcce waaw nga gis nag ku mel ne man ñëw ak ndeysaan yére yu xaw a tilim wala yooyu duñ yëg ne sax ñëw nga waaw duñ yëg ne sax ñëw nga léeg-léeg man ngaa toog ci chaise sax ñooy la mayal diw wàccal may diw mi waaye ñu ngi jégglu <laughs> waaye dara daraja yooyu day mën nañ koy jox nit ci àdduna fekk ku suufe ca yàlla la mën nañ koo xañ nit ci àdduna fekk ku kawe ca yàlla la la ma sama xarit ba waxoon xaaj baara yàlla na ko yàlla yërëm xaari ko aljana yi gën a kawe mbokk mu baaxoon la ñu xamante woon mu mënoon a taj tajwid alquran lool ginnaaw dañuy waxtaane alquran ba suñ xel dem ci moom te mu doonoon ku mënoon a tajwid da daan wax naan bari na koo xam ne day société bi dañ koy suufeel ba bu ñëwee ci mbooloo dana fa ñëw ba dem te duñ yëg ne ñëw na duñ yëg ne dem na ndax suufeel ko te bu tàllalee loxoom yàlla allahumma ju wax yàlla nangu ko waawaw waaye bari na ku ñuy naw di ko rëyal mbooloo muy teew laata muy teew danañ ko waxtaane ay waxtu diw lañuy xaar diw lañuy xaar buy dem itam ñu gàttandi ko ñu gunge ko boog toogaat waxtu di ko waxtaane waat te yàlla xam na ne bu ne allahumma du weesu sax du weesu bànqaasi garab yi waxuma la di egg ba yàlla di ko nangu kon ñun ci apparence rek la ñuy juger nit ki fu ñu toll nag di wax ay ay proverbe yu ñu maîtriser wul yoo xam ne pare wuñ sax pour dund ko dañ koy wéttilee jotaay rek léeg-léeg L'habit ne fait pas le moine l'apparence est souvent trompeuse léeg-léeg ñu naan xamuñu nitu yàlla waaye nitu yére la ñu xam nit ñi daal ak col rek la ñu xam te kala koy waxkat moo dàq respecté nit ci col moo dàq xeeb nit ci col mbir yi du wax mais dañ ko war di dundu nag wax dëgg yàlla joindre l'acte à la parole lu solo la mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa dane inna allaha yarfau bi hada alkitaabi aqwaama wa yadaau bihi aaxarin nee am na nit ñu yàlla kaweel te dara mayu leen ko lu dul fonk alquraan waaye am na nit ñu yàlla suufeel te dara tegu leen ko lu dul sàggane alquraan boobu xadis muslim moo ko solo ñu jële ko ci umar ibn alxataab radiallahu taala anhu waaw dina am na nit ñoo xam ne bu leen société bi yëkkatee itam duñu dara ci yàlla ndax lan teguñu alquran fenn am na ku ma ko mas a ci taalibe neem am na fuñ mas a dugg di wàccee kaamil ñu wàccee ba noppi kañ doon wàcceel kaamil nga xam ne mooy borom xew-xew xew wi tax ñuy wàcce kaamil bi taalibe yi wàccee bay génn yi dem mu ne nañu bale saal bi ndax taalibe yi doon wàcce kaamil dañoo salte lool te fekk ma ngay seexlu ñu ko gën a kawe gën ko sell waaw parce que xay na mbalit wala salte mën na indi pollution ci environnement wu àdduna waaye li gën a bon nag mooy nga polluer environnement spirituel bi te loolu bàkkaar koy def waaw loolu jar bàyyi xel la jamono contexte Covid bi corona bi daan naa ànd ak mbokk di wàcce kaamil euh, léeg-léeg dañu dugg ci benn kër am koo xam ne day taxaw ca buntu kër ga di garde da ñëw rek mu génne bouteille yu gel bi waaw yéen wàccikatu kaamil yi kenn ku ne laal bomb bomb bomb a dugg ndeysaan te moo am nañ barke boo xam ne suñ ko ñaanee rek corona bi yam fi waaye maal asaf ñu bari xamuñu ko malheureusement kon mbokk yi alquran a ngoog jàng alquran day indi leer di indi itam yërmande waaye itam day indi rammu yowmal qiyaam avocat moom alquran buy layal jaam bi ëllëg yowmal qiyaamatil akbar jële nañ ci abu darra radiyallahu anhu daa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaa rasulallah awsini ne ko yow mi yàlla yónni conseiller ma digal ma xelal ma yokku ma xalaat ci lu may jariñ yonente bi ne ko alayka bi taqwallah fa innaha ra'sul amri kulli qultu ya rasulallah zidni qaal alayka bi tilawati alquran fa innahu laka nuurun fi l ardi wala fa innahu nuurun laka fi l ardi wa duxrun laka fi lsama rawahu ibni xibbaan abu zarra lii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax alayka bi taqwa allah fa innahu rasul amri kulli waaw mu ne yaa rasulallah zidni mu ne ko alayka bi tilaawati alquran fa innahu nuurun laka fi l wa duxrun laka fi sama abu darra dane yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ndax am nga sagesse bu nga xam ne xel mu sell moo xam ne koo ko koo conseillé soo say conseil rek dana raw ku dul moom yonent bi salaam ne ko maa ngi lay dénk nga ragal yàlla di ko bàyyi xel ci lu mën a doon waaw dana tax ba doo dugg ci lu mat dugg waaye doo sàggane itam lu lu lu mat a fonk ndax boo gisee lu am tuyaaba bu ko ñëppi sàggane sax ragal yàlla du la may nga sàggane ko waaye boo gisee loo xam ne bàkkaara nga ca ah boo gisee ñu koy def sax ragal yàlla du la may nga def ko ragal yàlla mooy policier bi dàq contrôler policier yi ak gendarme yi may mooy homme de tenue bi wala mooy force intérieure bi nga xam ne moo dàq contrôler nit ki ni ko homme de tenue bi di contrôler di ko surveiller policier bi wala gendarme bi waaw chauffeur si bu ñu soree montage am na lu ñuy sañ a def waaye bu ñu ko jegee nag am na lu bëri léeg-léeg sax ñu ne la nga nga nga fàtte sa ceinture de sécurité ñooy la ñu dem bay bëgg a jegee montage ñooy eh takkaat ko takk ko takk ko ba passé fii ndax di ragal ka koy surveiller foofu ka koy contrôler foofu waaye ragal yàlla nag mooy force intérieure bi nga xam ne moo dàq contrôler policier wala gendarme am na sëriñ bu baax boo xam ne nee nañ sëriñ Abdul Ahad Mbàkke la nee nit ki bu demee ba toll foo xam ne kenn sañatu ko digal kenn sañatu koo tere na jël alquran def ko kilifaam nee na ko jàngee rek alquran dina ko wax li nekk ci moom te mu doon loo xam ne nekkuwul gënut yiwut jekkul mu bàyyi ko dana ko wax itam la yiwu la mu sàggane mu jéem ko mu jéem koo liggéey mu jéem a liggéey ba def ko ci boppam moo tax mu ne ko dénk naa la ragal yàlla mu ne ko waaw dolli ma boo ma nee dolli de boo dollee ma jël mu ne ko maa ngi cay teg fonk di ko jàng mu ne ko alquran lu ci nekk mu ne ko ah, dina la niital ci àdduna de dina nekk benn projecteur bu lay niital ba nga xam fi ngay jaar ba nga xam ne doo ci mukk yoon wi yàlla gërëm xam ngeen ne kuy dox guddi yor torche bokkut ak kiy dox guddi e, te loxoy neen rek lay doxee mën naa fa kasalu moom borom loxoy neen ya mën naa daanu ci kàmb mën naa mbëkk ci dara wala dara mbëkk ko kon nag kii fonk jàng alxuraan moom alxuraan mooy nekk lumière projecteur wala torche bi koy leeral waaye alxuraan itam mooy compte bancaire biñ koy dencal mooy compte bancaire biñ koy dencal ëllëg yowmal qiyaam moo lay leeral ci àdduna waaye mooy doon yiw wiñ lay dencal bu àllaaxira buñ la ko fayee rek nga ne waaw àjjana ju rëy ji moom fan laa ko jële ñooy la dara alxuraan ji nga doon jàng rek de mo la ko may lu jar a xel la tabaarakallaahu alquraan moo gën àdduna ak ci biiram jële nañ ci uqba ibnu aamir radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dañoo mas nekk ca suffa ahlu suffa ña daan fanaan ca jàkka ja ndeysaan dañoo nekk foofu yonente bi ne tëll yam ci ñun ne ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthaana aw ila alaqiqi fa yatiya minhu binaaqatayni kawmaawayni kawmaawayni fi gayri ithmin wala qataci rahimin qulna ya rasulallah kulluna nuxibu dhalik qaal afala yagdu axadukum ila almasjidi fa yaclam aw yaqra aayatayni min kitaabillahi azza wa jalla xayrun lahu min naaqatayni wa thalathun xayrun lahu min thalath wa arbaun xayrun lahu min arbain wa min acdaadihinna min al ibil rawahu muslim ndeysaan Uqba ibnu Aamir nee na yonent bi sallallaahu ñu nekk ca suffa mu fekk ñu fa ñu nekk ca jàkka ja mu ne waaw yéen a ngi waxtaan de ñu ne ko waaw mu ne ah ngeen am jot rek waaye seen waxtaan wi ngeen toog de ak seen jot gii day moo de mënoon ngeen ce liggéey lu leen di jariñ ñu ne ko ah nuñ koy defee mu ne ah bu leen neexoon de ngeen dem ca xuru butuxaan wala aqiq kenn ku ne indi ñaari gëléem yoo xam ne dañu am jigéen yu rëy jigéen yu rëy rëy te moone ci anam gu lew lañ koy fàggoode waaw comme neexoon ci yéen de mën naa dem ci xur wee léegi ñaari xur yi muy euh, xur woowu ñuy tudde butxaana wala aqiq kenn ku ne ci yéen dem fa indi ñaari gëléem yu rëy yu am jëmm te moo ne day euh, euh, du ko wute ci anam gu araam de du ko wute ci bàkkaar te du dog mbokk ba am ko du ko wute ci wax lu dul dëgg wala bàkkaar wala jaxase wala rëmbaaj waaye ci anam gu lew la koy fàggoo ñu ne waaw loolu nu mu mën a deme dem ci xur ya léegi indi ñaari gëléem waaw loo ñu bëgg a jàngal yonent di sallallahu alayhi wasallam waaw kay du maa leen wax bu ngeen xamul da ngeen di laajte laaj leen ma lu ma ci jublu ak nu ngeen di amee gëléem léegi ñu ne ko buñ ko mënee xam kay jël mu ne waaw loolu yomb na yéen ñi ku ci dugg ci biir jàkka ji ku ci dugg ci biir jàkka ji mu xool ku ko tane ku ko raw ci aliwa mu jàngal ko benn aaya ci téere bi yàlla bi wala ñaari aaya tuyaaba jëm cey jële moo ëpp ñaari gëléem bu dee ñaari aaya la wala benn bu dee ñetti aaya la itam tuyaaba ja moo ëpp ñetti gëléem bu dee ñeenti aaya la tuyaaba ja moo ëpp ñeenti bu doon fukki aaya la sax tuyaaba ja moo ëpp fukki gëléem jeex na ki ci man alquran na dugg ci biir jàkka rek mu mu jàng lim man ci alquran lum toll ci aaya rek dana am lu ko duubul ci ay gëléem ci tuyaaba ki mën a jàngale itam na jàngale lu jàngale ci aaya rek dana am lu toll lu ko duubul ci ay gëléem loolu rek laa ci jublu kon nit a ngi toog di waxtaan ndeke jot gi mu am bay waxtaan bu demoon jàng ci alquran dana ci jële tuyaaba joo xam ne kañ lay xam ne jàng alquran a gën lu dul moom muy bu yowmal xiyaamee bañ fay ko ko dana yéemu ba ne lii moom liggéeyuma ko lii moom yàlla dama yërëm jox ma ko rek yàlla damaa arrangé rek jox ma ko rek waaye lii moom wax dëgg yàlla liggéeyu ma ko loolu muslim moo ko solo kon mbokk yi alquran mooy téere boo xam ne ku koy jàng ku ne di nga ñeenti ngëneel ah waaw am na ñeenti ngëneel yii de ku ko bëgg jàngal alquran benn bi mooy ku bëgg jàmm jàngal alquran ñaareel bi mooy ku bëgg yërmaande jàngal alquran ñetteel bi ku bëgg malaaka yi di la aar jàngal alquran mooy mooy mooy mooy ñetteel bi ñeenteel bi mooy képp ku bëgg yàlla di di la tiitaroo jàngal alquran ku jàngal alquran di am ñeent yi yàlla dina la may jàmm may la yërmande boole la malaaka yi muy yu lay garde boole la ci jaamam yi muy tiitaroo loolu nag du samay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne majtamaa qawmun fi baytin min buyutillah yatluuna kitaaba allahi wa yatadaarasuunahu fi ma baynahum illa nazalat alayhim alsakina wa gashiyat-hum alrahma wa xaffathum almalaa'ika wa dakarahum allahu fi man cindah rawahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ay jullit saa yu ñu dajalee saa yu ñu dajee rassemble saa yu ñu dajee ci benn néeg ci néegu yàlla yi dara taxu leen a jóg lu dul jàng alquran rek moom lañ fa def yàlla dina leen may ak dal calme paix quiétude sérénité stabilité waaw ku bëgg am jàmm rek bokkal ci mbooloo yi jàng alquran ñu ne waaw kon de loolu benn may la muy jàng alquran day may ak dal vie paisible vie calme vie boo xam ne daal sereine lay doon une vie sereine muy dund gu dal muy benn ñaareel bi mooy ku bëgg a am yërmande yàlla yërmande ji yàlla yi séddale ku ci bëgg a am loo xam ne kenn du la ëpple noo koy defee ñu ne del jàngal Alxuraan ñu ne kuy jàngal yàlla dina la booleeg ay malaaka yu lay garde di la aar di la sécuriser ba kenn du la mën néewal doole ñeenteel bi mooy kuy jàng alxuraan yàlla dina la tiitaroo kon ñett la de ñett ñeent la ñeent ñeenti mbir kuy jàng alxuraan benn yonent bi sallallahu alayhi wasallam na yàlla dina la may jàmm akuk dal dundu gu dal ñaareel bi mooy yàlla dina la sànge mbalaanum yërmandeem ñetteel bi mooy yàlla dina la boole malaaka yu lay aar ñeenteel bi mooy yàlla dina la boole ci jaamam yi mu gërëm ba leen di tiitaroo di leen bàkk di leen kañ ca malaaka ya muslim moo solo loolu mbokk yi ku bëgg a jëf tuuti di fayeeku lu bari del jàng alquran defe naa ne jëf tuuti fayeeku lu bari bu promotion amee xam ngeen ci dara léeg-léeg nga gis ku jënd 1000 francs crédit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 une seule lettre benn araf nga jàng ko ci téere bi yàlla bi nee na di ci am tuyaaba de te benn tuyaaba boobu dañ koy ful ba mat fukk dane ne araf nag waxuma ne mooy alif laam miim alif laam miim du araf waaye baat la waaye tey boo jàngoon alif laam miim alif gi xaraf la laam gi xaraf la miim gi xaraf la kon alif gi day indi fukki tuyaaba laam indi fukki ba muy ñaar fukk miim indi yeneen fukk muy fanweer kon alif laam miim dong boo ko waxee amoo ci fukki ba de waaye fanweeri fanweeri tuyaaba muy trente moom nga ci yaam waaw kon ki jàng saaru baqara ba mu jeex nag i kon baqara mi ngi doon mi ataani wa xamsun wa samaanuun ci ay aaya muy deux cent quatre-vingt-cinq verset waxuma baat yi de aaya yi deux cent quatre-vingt-cinq la waaw léegi soo defoon deux cent quatre-vingt-cinq fois dix lum lay jox dalay jox deux mille huit cent cinquante tamoo ne euh, waxuma baat yi waxaguma araf de waaye aaya yi kon bu fekkoon rek ne aaya bu ci nekk rek fukki tuyaaba la kon ku jàng saaru baqara ba mu jeex am nga deux mille huit cent tuyaaba muy ñaari junni tuyaaba ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk waa ku jàngoon baat yi nag ku jàngoon araf yi te la yàlla wax kon dana bari lool ci ay tuyaaba ay million lay doon mbokk yi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mu ñuy wax ci alquran rëy na lool kon nañ ci gën a góorlu ci di ko jàng mbokk yi xadis boobu tirmidi moo ko soloo ñuy jàng téereb yàlla bi ñooy ñi yàlla féetewoo ñoom la yàlla faral te farag yàlla nag moo gën farag mindeef wala farag jaam wala jullit yonent bi sallallahu alayhi wa daal di ñëw indi wax ji wane ne farag yàlla moo gën farag mindeef ndeysaan mu ne inna lillahi ahliina min annaas qaalu ya rasulallah man hum qaala hum ahlul qur'ani ahlullahi wa xaasatu rawahu nasaayi yonente yàlla de am na ñum faral ci nit ñi ñoo xam ne bu doon tànnuk njaboot ñooñu ñooy njabootam ci biir mbindeef yi de ci biir nit ñi am na ci njaboot de ñu ne ko yàlla njaboot yàlla fu mu amee njaboot mu ne da ngeen may déglu rek du wax yéen kay déglu leen du amul ñoo xam ne seen yitte yépp mooy di jàng alquran ak di ko jàngale ñu ne ko xakay mu ne jeex na ñooñu ñooy njaboot si yàlla ñooy farandooy yàlla yi kon ku ci bëgg a bokk rek bokkal ci ñuy jàng alquran wala nga di ko jàngale wala nga tabax daara jeex na waaye tamit alquran soo koy jàng dalay aar di la protéger di la sàmm di la sécuriser ibnu abbas radiallahu anhuma nee na man qara al qur'ana lam yuradda ila ardalil umur nee na képp kuy jàng alquran daal kenn du ko toroxal ca toroxtaange googu yàlla ne woon laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala saafilin illa alladina amanu qaal alladina qara'u alquran rawahu alxaakim ibnu abbas nee na yàlla du moo wax ci alquran ne maa bind doomu aadama ci melokaan wi gën a jekk ñu ne ko waaw bañ ne waaw mu ne mu teg ca ne waaye doomu aadama de mën naa sàggan ba doon ki gën a yées melokaanam wu jekk wi mu taxaw ne jonn ay loxoom jëm suuf ay tànkam jëm suuf boppam jëm kaw melokaan wu jekk la de ñu ne ko waaw mu ne waaye nag fi mu ne nii day ma nekk ca la ko war rek bu nekkee ci jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yi melokaan wu jekk woowu lay taxool ba àjjana waaye bu tënkuwul ci ndigal jëfewul ndigal bàyyiwul tere bu yowmal xiyaamee dañu koy soppali mindeef bi gën a yées mbaam xuux wala golo wala yu mel noonu ñu ne nag képp koo xam ne ibnu abbas wax de nee na day jàng alquran bu yomal xiyaamee kenn du ko soppali golo kenn du ko soppali mbaam xuux kenn du ko soppali mbaam sëf kenn du ko soppali dawkat waaye melokaan wu tedd kon mooy day texe rek aljanna lay jëm ndeysaan kooku xaakim moo ko solo alquran boo koy jàng day jël sa xool rek mu fixé ko ca yàlla doo fàtte yàlla mukk waaw doo fàtte yàlla yonent bi salaam nee na man qaraa ashra ayatin mbokki ashra mooy ñaata fukki aaya man qaraa ashra ayatin fi laylatin lam yuktab min alxaafiliin rawaahu alxaakim nee na képp ku am fulla ju tol ne wala passeef bu tol ne guddi gu jot lu mu gàtt gàtt nga jàng fukki aaya léeg sax nga jàng lu ko ëpp waaye au minimum rek nga jàng dix verset kenn du la bindaale ca liste ba ñuy bind turi ñi sàggan ah kon képp koo xam ne bëgg nga sa rëcc sa kenn du ko bind ci ñi sàggan ca list ba ñuy bind ñi sàggan ñi del def guddi gu jot rek lu mu gàtt-gàtt nga jàng fukki yaaye mbokk boo bëggee bokk ci ñiy déggal yàlla itam del jàng alquran yonent bi nee man xaafada man xaafada ala haulaai salawaati almaktubaat lam yuktab min algaafiliin wa man qara'a fi laylatin mi'ata aayatin kutiba min alqaanitiin rawaahu ibnu xuzayma fi saxiixi yonent bi salaam nee na képp ku farlu farlu gu toll ne pastif bu toll ne benn waxtu du ko raw nee kooku dina mucc ci ñu koy boole ci ñu sàggan yi maanaam kooku daal kenn du ko limaale ci ñi sàggan kon ku bëgg ñu génne la ca listum ñi sàggan fexeel ba fonk julli juróom yi waaye képp ku bëgg ñu bind la ca list ba ñuy bind ñi déggali yàlla ñi toroxlul yàlla ñi koy jaamu nee na fexeel ba guddi gu jot nga jàng téeméeri aaya téeméeri aaya sooy def guddi gu jot daal nga jàng téeméeri aaya ah yàlla dina la boole ci listu ñi ko déggal liste ba muy bind ñi ko déggal yaakaar na kuy nab nabi ne man la yombul waaye yomb na sëriñ daara yi ak donga daara yi donga daara yi sax ay sëriñ laa leen di tuddee waaw ibnu xuzayma moo ko solo ca saxiixam ba mbokk yi ba léegi maa ngi ci jàng alquraan day maye ràmmu ëllëg yowmal qiyaam aw ku koy jàng ci àdduna bu àllaaxira mu soppali avocat la yàlla buñ la naree dugal safara mu plaidé la layal la layal dugal la aljanna moo tax yonent bi salaam daan wax ne iqra'u alqur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashaabi rawahu muslim mu ne leen faral di jàng alqur'an ñu ne ko lu mu ne alqur'an képp ko fonk di ko jàng ci àdduna bu yowmal qiyaamee bu àllaaxira mu soppali ko avocat buñ la naree dugal safara ba yàlla wax malaaka yi ne kii jiital leen ko yóbbu safara ndax bàkkaar yu bari alquran ñëw dox sa digg ak malaaka yi ay waay bàyyi leen ko kii fonkoon na ma de kii am na bëccëg yoo xam ne daawul sieste ngir yor jukki bi jàng rek guddi yoo xam ne daawul nelaw ngir taxaw di naafila rek di ma tari yàlla ne waa bàyyi leen ko yóbbu leen ko àjjana rek kooku muslim moo solo ndeysaan ko defee kon nag euh, alquraan a ngoog yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax ci ngëneel yooyu wax ci yiw yooyu waaw nee na itam yuktaa yawma alqiyaamati bilqur'aani wa ahlihi alladina kaanuu yacmaluuna bihi fi ddunya taqdumuhu suratu albaqara waalu imran tuxaajjaani an sooxibihima rawaahu muslim alquran day layal ki koy jàng nee na bu yowmal qiyaame dañuy indi délégation ñi nga xam ne ñoo daan jàng alquran daa ko jëfe waaw alquran alquran ak i gaayam alquran day def délégation moo ki gaayam moo ñi ko daan jàng délégation alquran day am ba yowmal xiyaamee délégation boobu nag euh, ña koy jiite mooy ñaari saar yi saaru baqara ak ali imran ñooy jiitu yeneen saar yi topp ci jànkatu alxuraan yu topp ci alxuraan délégation boobu muy def day jiital ñi ko daan jàng taxaw ci kanamu yàlla yërëmal ñi jéggalal ñi suturaalal ñi baal leen bu leen toppe seeni rëcc-rëcc bu leen toppe seeni bàkkaar bu leen toppe seeni moy ndax ka sikk suñ mën a am wax dëgg yàlla sàggane wuñ ma woon fonkoon nañ ma lool man alquran di ma jàng yàlla sukkandiku ca waxi alquran jooju yërëm leen ndeysaan alquran moo leen di saraxul ba yàlla yërëm leen dugal leen aljanna kooku muslim moo ko solo kon nag nañu fonk alquran ndax ñu bokk ca délégation ba nga xam ne ñoom lay saraxul ñoom lay layool waaw ndax alquran moom bu yomal xiyaamee bu yàllay atte dina def délégation de délégation alquran baqara jiitu ale imran tege ci yeneen saari tege ci aywa sëriñ daara yi ñëw nag ak taalibe yi daan jàng waaw alquran naan yow yàlla yërëmal ñi jéggal lal ñi suturaal suturaal leen yërëmal ñi jéggalal ñi sutural leen yàlla yërëm leen jéggal leen sutural leen dugal leen aljanna ci barke alquraanul karim kon nañ ko gën bàyyi xel alquraan day maye daraja daraja ji mooy lan nga loose fi gën a kawe ca aljanna bokk ca lañuy liggéeyee tàmm cinq étoiles yi ndeysaan cinq étoiles aljanna yi léeg-léeg ñu lay dig voyage yenn agence de voyage yi ci wàllu pèlerinage yi ah, danañ leen dalal ca hôtel cinq étoiles ya <laughs> gars yi tàmmu dalu VIP yooyu waaye cinq étoiles àjjana yi de ku ci bëgg a bokk na nga fonk alquran yonent bi salaam dana yuqaalu li saaxibil qurani qora wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda axiri ayatin taqra'uha rawahu abu daawud waaw bu aljanna teewee yowmal qiyaam yàlla ate ba desul lu dul dugg àjjana yàlla ne aywa jànkatu alxuraan yi kaay leen ñu ñëw mu ne aywa kenn ku ne tari li nga mën ci alxuraan waaw léeg-léeg nga gis soo xam ne benn aaya rek la man nga gis soo xam ne góorgóorlu na ba man benn saar nga gis ku gën a tane góorgóorlu na ba man isib kii am juróomi isib kii am fukk waaw kii mokkal na xaaju yaasin bi ki mokal xaaju mariama kii mokkal xaaj bale alif laam miim sood ba naas kii kaamil bi yépp waaye jàpp leen daal ku ëpp lu mokkal moo lay gën a am accès ca daluwaay ya gën a nekk VIP loolu daal la moom kon nag fiñ koy wutee ngoog àddunaa ngoog jeexagul dundu gaa ngoog képp kum jeexagul ci moom rek mën naa wut ngëneel loolu nañu ko jàng di ko jàngaloo suñuy doom suñuy soxna suñuy sët suñuy sëtaat ndax téere bi man fee sax inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafiduun ga dëggoo ci ñun kon mbokk yi alquraan a ngi mën nañ koy waxtaane ay junni junni yoon jeex lu dul doy nag loo ci am doy loo ko ma taxawandi fii dinaan aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin abonné leen ci seen youtube bii di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenté di yéeme ndax fi la njëriñ di gën yaatoo jàngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu